Euh, Ndoura ñu ngi la fekk euh, seen kër nga nekk grande sœur Zos di champion bu mag euh, tey naka ngeen waajalee li nga xam ne nii moom mooy combat bi diggante mook Tapha Tine waajal nañ ko kon niñ ko doon waajalee di julli si Seydina Mohamed di sang-sang yi di ñaanal ñëpp Zos mbër la Tapha mbër la ñun ñëpp ñoo leen bokk Zos sama rak la Tapha suñu rak la waaye tamit Zos waajal nañ ko yàlla nag mooy mayandam te ñoo koy ñaan ci barkeem mu may ñu ndax mu sedd guy amul benn werante euh, mobilisation bi fan ngeen ci tool xale yi ñoo ko yor genre yi ñoo ko yor mais mi ngi def lépp def na lépp macha allah Cheikh ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax taxawu na taxawu waay fépp taxawoon na ko taxawu mag taxawoon na ko taxawoo rak kon nag amuñu luñ koy fay. Euh, bu combat amee dañuy gis ne am na ñu bari laa dañuy jàppale mbër mi ndax fi mu toll nii am na ñu leen jàppale. am na ñu ñu jàppale macha allah am na ñuy jàppale bu baax a baax a baax ñuy sant tamit suñu yaay di gërëm suñu yaay lépp moom la suñu demee ba taxaw ba takk fii ginnaaw yàlla maire bi la maire bi moo waral lii lépp dañu koy ñaanal di ko sant yàlla yàggal ko fi yàggal taxawaayam ba mu fekkee ñu ni suñuy njariñ ak ñeneeni ñeneen suñuy doom ak doomu ñeneen. biñ ne Zoss day tafe tase euh, Tapha Tine euh, est-ce que tiitoo leen wala ngeen jaaxle. non foofu mu góor la rek fomu gor la rek waajal nañ ko nuñ ko wara a rek te am nañ yaakaar ne ki jos mi jos mi ñu gis ni di ngeen gis lu bes tak ci kanam soobee yalla ab euh, lan ngeen préparé euh, lamb ji yow lan nga yaakar si yow sa xalaat lan nga yaakar ne yow lamb ji non lay démé si dor lay jéxé wala si bëri. lamb lamb dor la wax da ngay lamb daj wala nga lamb ñaar suma lambé fi mu dor ma lamb fi ci dess nu mu gën rek nako daan rek. daan daal la am. looy ñaax supporters yi bu ñu demee stade ndax d'habitude euh, gis nañu violence bi toujours si ñoom lay tukkee. ñoom dañuy dem si jàmm ñibbisi si jàmm du ñii ñoom xamee wuñ leen ay moom xale yi ndax am nañ yar am nañ teggin te bu ñu dégloo xool seen mag ñi rek fi seen mag yi jaar rek fa la ñuy jaaraat. kon su sa xalaat si bisu tey ñu ye ñu yeewu euh, ñëw jàkkaarloo ak yéen tey lan nga ñuy wax. waa di santa di waxaat alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mi nga xamante ne moom moo ñu may ñi fekkee tey ci suba gi tëdd ak jàmm yeewu si jàmm ak salaam di ñaan yàlla mu mayaat ñu ñu fekk ko ba ngoon incha allah ñu dem làmb ja yàlla defal ñu fa xéwal. su la doon wax sa diggante yàgg tafaatin jos Zoss Tapha est-ce que diisul. waa si diis na Tapha moom ko xam-xam ne diis na parce que mënoo bëre roi des arènes ba pare ñu ne diisoo te en plus nekkoo favori mooy favori mooy favori te diis na te dafa naqaree bëre te dafa mën a bëre. loolu moom ku ne Tapha Tine mënul bëre da nekk di wax lu la neex wala xamoo làmb comprendre nga kon nag lu ñu wax diis na métti na mais nag dañuy ñaan yàlla mi nga xamante ne moo am kàttan moo ma ñu ndam daal te incha allah. Euh, nag ngeen waajalee combat bi si wàllu mobilisation. waa ñu ngi koy waajal bu baax a baax parce que ticket yi depuis jël nañ ko depuis barki démb presque démb si guddi lañ joxe lépp bépp ASC fu mu nekk rek jox nañ la say billets jox nañ ko say président ASC yi jox nañ leen ticket yëpp supporters yi macha allah lépp mat na billet desatul lépp jeex na 5 million billets la ñu jël foofu. kon 5 millions bii yëpp tas nañ ko ba mu jeex tàkk dafa sax manqué maa ngi jéem a négocier nii nu may jéem a duggee esaat pour régler waat quelques billets pour doole ko gars yi parce que billets yi matul di wax samay supporters tamit nañ ñëw ci jàmm ak salaam parce que woowuñu kenn pour muy dem foofu pour xeex di xuloo boo gisee combat yi la passé conseil amoon na mais tournant bi biñ ciy dugg yàlla dafa def jos boo ko xool jos sax ay état yu muy ànd ngay xam ne kii nii ñëpp dañ naan entraîné wul parce que lan moo waral loolu parce que yàlla dafa defoon buñ duggee tournant bi ba tournant presque bañ jël avancé jos mi ngi tëdd feebar Amérique bi mu fa ne feebar la àndaale fii bu mu ñëwee presque toog nañ benn un mois juste boo ma entraîné wuñ chaque jour dañuy topp di ko toppatoo pour mu mën a am tan demoon na bañ na ko tournoi bi il faut nga jëm ci génn mais mënoo lee xaalisu jàmbur bu bari bu toll ni nga ne doo bëre ñu négocier jaayante xam nga ba yàlla moo dogal sax ñu am ci lii mais dañ ciy sant yàlla bu baax a baax bii nag ñu ngi koy pare bu wér. mën changement bi ngeen nar loolu jaru wax kuy dem guerre doo wax ni raay doxe